salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéenee safoo chaîne bii di Buzz Actu 221 ñu ngi sàkk bu baax ngeen abone aimé partager commentaire like ndax kat loolu dina nekk li nga xam ni saa su ne li ñuy dimbali ci li mbir bi nga xam ni ñu ngi koy sekk ak yéen tey dañuy ñëw ci ki nga xam ni moom kër bu mag bile daal di wuyoo turu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis faro fële ca Walfadjri jamono gi ñuy waxee ak yéen gis nañu bu baax a baax taxawaay bi nga xamee ni amee na ko ci langue politique bi la rawatina tamit ci lenn ci li nga xam ni moo di télé yi waaye nag moom Cheikh baara moom mi chroniqueur bi la daal di ne addu jamono gi ñu toll nii ci situation bi nga xam ni situation bi muy dundee la ci mim réew Sénégal rawat na ak jàngatam ci leneen ci li nga xam ni moo di wàllum lu jëm ci politique bi la ndax kat foofee ca Walfadjri gis nañu taxawaayam bu baax rawat na sax leneen ci li nga xam ni moo di site internet yi la moom nag Cheikh Bara jamono guñ toll nii dañu gis ni saa su ne day xam ne lenn ci ay jegeñaaleem dañ koy artu ak dikk addu bu baax a baax ci tolluwaay réew mi ak ci ki nga xam ni moo di président de la république ci gaaw jàppeem gi gaaw gi nga xam ni lenn ci ay institution am rawat na ci li nga xam ni ñoo lamboo ci wàllum justice dañ koy defee bu baax a baax ci taxawaay ngay gis ci mim réew di Sénégal ndax kat jamono gu ñu toll nii jàpp gi bari na loolu rawat na ci ñi nga xam ni sax dañaa apti ci bu baax a baax lu jëm ci wàllum méccum journalisme kon nag taasu ne bu ñu gisee moom ab kër di génn di wax ci tolluwaay réew mi te saa su ne loolu muy wax dafay nekk miir bi nga xam ni lu kenn dul du baaraam la kon nag lool rawat na ay jege jegeñaaleem dikk ko sant ak dikk mettuloo bu baax a baax ci loolee sax moom Cheikh Bara njaay di ni ba léegi gis nañu bu baax a baax taxawaay bi nga xamee ne am na ko ndax kat xel la ci jamono gu ñu toll nii te saa su nekk kàddoom lu ñuy safoola li di ko ndamoo bu baax ndax kat li waral lu ñu mel du lenn lu dul gis-gisam politique am ak ci taxawaayu politique am ak ci jàngatam rawatina su waxee bu ne da nga naan kii dafa fare fu baax a baax fi nga xam ni moo di opposition bi la donte farewul benn yoon ci opposition bi la amaan na lu mu gis ci actuel Sénégal lay wax waaye nag lu mënta am ba am moom day xamle bu baax day wax chronique yëpp da ciy wax ak lu mënta demee tamit ngir kat kii di président Macky Sall jógee fi ndax kat moom dafa doyal sëkk te Macky dafa jot pour mu jógee fi ndax kat ñaari mandat mi le moo mate mur kat moom président ngir mënatul nekk li nga xam ni moo di njiit réew mi réew di Sénégal waaye kat moom mi le di Cheikh Bara daal di addu jëmale ci kat analyse yi nga xam ni moom mi moom Cheikh Bara Ndiaye dina koy taxawee benn muy analise bi nga xam ni moom lay defee muy faj aaja aada ak cosaan waaye benn analyse bi muy jëmale ko ci président de la république benn analyse bi mu jëmale ko ci wàllum Ousmane Sonko beneen analyse bi mu jëmale ko ci li nga xam ni moo di biir réew mi ak biti réew taxawaay bi nga xamee ne politique am na ko waaye tamit taxawaay bi nga xam ni gis nañ ko bu baax ci jàngat loolee sax tax na moom Cheikh Bara ñu koy daal di dànkaafu muy xamle ab nijaayam daal na ko bu baax yow Cheikh Bara su ma sañoon lii di wàllum politique da nga koy bàyyi ndax kat gis nañu jàpp gi bëri gi bi yomb gi mim réew du Sénégal moom nag Cheikh Bara daal di xamle kii di président de la république Moussa Macky Sall su ko jàppee tegu ko fenn du dëgg du yoon ndax kat moom du Moussa dingat ak di def li nga xam ni loolu la constitution Sénégal di lu mooy du Moussa dut baaraam di ñàkk ñàkk kersa kii di président de la république waaye nag li nga xam ne moo di tolluwaay réew mi ak gis-gisinam kenn mënu kaa ba di ko wax ci mim réew kon nag jamono gi ñu wax ak yéen suñ ko jàppee moom nag xam ne dañ ko war a jàpp ndax kat ñi nekk ci prison ba ëpp ñu ko fit ëpp ñu ko jom ëpp ñu ko njàmbaar ëpp ñu ko dara kon nag moom mu ngi xaar bu baax a baax waaye li nga xam ni moo di tolluwaay réew mi kenn kenn du ko tere ndax mu wax ndax kat dafa nekk droit ak devoir saa su nekk mim réew di Sénégal nit ku nekk boo fi juddee yaroo fi am fi li nga xam ni moo di certificat am fi li nga xam ni moo di extrait de naissance am fi leneen ak leneen mi certificat judiciaire am nga droit bu baax baax addu ci mim réew loolee sax tax na moom loolee la la gis ba tax na saa su ne da ciy wax gis-gisam bu baax a baax te du kenn kuy tax muy tax bu bàyyee loolee la mbir wéy leen di abonné fi nga xam ni moo di Buzz Actu 221 ndax kat lépp loo xam ni xibaar ak jàngat ñu leen koy defal saa asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa